bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ñëw fii tey ci atub sëriñ Abdou Samane Mbacke Souhaïbou di di kenn koo xam ne mën naa ma wax ne jërul le muy ku ñu xam ku ñu miin ci liggéeyal islaam waaye mu jaarale ko ci ron jëwriñam di jëwruñul yonente bi sallallahu alayhi wa Xadim ci tool boo xam ne ci suuf su nangu soo xam ne képp koo xam ne bay na fa te selal sa mbay danga fa góob ngóob mu meññ mu am njariñ mu ñëpp mën a jariñoo moom nag mel na ne ma ngi cay bay aw waar woo xam ne dem na ba xeep ko ba tax mu wut média boo xam ne da ko cay dimbali ngir mu tasaare njàngalem Serigne Touba tasaare diine di liggéeyal diine ci anam yëpp ba yaakaar naa ñu bari ci loolu lañ ko miin ci loolu lañ ko xam di ñaan yàlla suñu borom defal ko tawféex mu dajee ngërëmal maamam Cheikhul Khadim ci liggéey bu rëy boobu di jàmbaar lool ci bokk gi ak ci lépp tey nag ñu ñëwoon doon ko siyaare doon ko seetsi doon ko leeral tamit benn ci jéego yooyu jëm ci liggéey Sëriñ nga xam ne ab toolam la dana ko neex lool ndax lépp loo xam ne ci yoonu Sëriñ la jëm gis nañ ñim ci taxawee muy liggéeyu karawaan Mayomba boo xam ne mbooloo la moo xam ne dañoo jóg fas yéene jaar jaari Serigne Touba ci Gabon ñu fas yéene ko dundal rawati nag ca barab ba nga xam ne mooy Mayomba fa la Serigne Touba nekkoon ci diirub juróomi at ak lu topp dafa liggéeyal euh, boroomam ci tumuraank tumuraank gu metti waaye boroomam maanaam jaral ko lépp ndax barab la bu yéeme yéeme bu tumuraanke bu bu boo xam ne jeex de doy na waar barab boobu nag lañ fas yéene di ko dundal fa dem am fa ñaari fan fa suñu ba sampoon bantam ya foofu ca Gabon ñu koy dundal ci alxuraan ak xasida di soññ itam mboolem ña fa nekk ci ay taalibe waaye mbooleem tamit ña nga xam ne ñoo doon sëlal Sëriñ ca Gabon seen njaboot ña nga fa te dañu ñëw ca bis boobu di ko teewee muy lu muy lu am solo ñu am yéene nag sëriñ Fallou mi nga xam ne yàlla dogaloon na ci xalaat bi suñ borom jaar la ko ci moom mu xalaat ko taxawal ko wutal ko ay kër yoo xam ne état bu Gabon bi nangul na ko ba bis bi génn nga xam ne ci kër yooyu fu waaye mën di nekk ci àdduna fa nga mën a jaar ñëw biir Gabon ñëw biir Mayomba wisit jaajaa seen tubaay te du ci am benn jafe-jafe mu ànd ko ak mbokk taalib yi nga xam ne ñoom Sëñ Tuubaa rek moo leen ñoroon ñu ànd ak moom liggéey bi fële ca Gabon nekk ca ba tey moom wujj boroomam ñu fas yéene ànd ak ñoom nañ ànd woon nag ak suñu waajur woowee di liggéey Sëriñ Tuubaa muy ñaari liggéey yoo xam ne ñu toll ci benn bi ci dafa dem di siyaara barab ba di ko nemmeeku di ko xamle ndax Sëriñ Tuubaa loo ko gën a xam di gën di bëgg mu am nag ñaareelu projet boo xam ne mooy daaray Serigne tubaa joo xam ne dañu fa jàngale diine dafay jàngal mbooleem waa Gabon ya fa nekk ñu xam sëriñ bi xam seen diine waaye tamit ñu ne sa fa kër Serigne Touba goo xam tamit dana mën a tax mbooleem ña fay ñëw ëllëg dañ fa mën a ñëw di fa mën a dàlloo di fa mën a amal liggéey bi ñu liggéey loolu lañ ñëwoon nag di ko leeral euh, sëriñ bi ngir mu mën caa soññee mbooleem mbokki taalibe yi waaye ñaan ci bu baax te xam nañ ne moom ay kàddoom ku ko déglu taataan ko danga ci jële njariñ loolu sëriñ bi moo doon kàddu yi xam naa ma ma di jéglu lu baax a baax ci waxtu bi nga xam ne léegi jël nañ ko ci yow. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ naa noo ngi lay nuyu bu baax a baax yaa ngi ña nga àndal ci liggéey bi di la sant bu baax a baax ci taxawaay bi. ak itte ji sëriñ Fallou Boussa sa waajur doonoon nijaay ci nun waaye doonoon xaritit di wëllëre woo xam ne sore woon nañ lool sama digg moom ñu mën koo seere lool ci bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa yàgg koo bëgg a dox ci ay jéego yu wéer ci foofee waaye demit bàyyee leen ko nga ànd koog bokki taalibe ya fa ne yaa àndoon moom ci liggéey bi yëpp lii nag day loo xam ne képp ko xam sëriñ bi rek du la bett ndax lam liggéey foofee ca maa yomba kon ne xam na ne ji na fa loo xam ne bu saxee ba meññi ñépp dañ ci teg seen bët xëy na nag daa naroon a saxe ci yéen meññ ci yéen moo tax mu nekk ba nëgë ñu door fay xalaat xalaat yii ngeen wax def fa kër sëriñ bi daaree sëriñ bi jumaa ak lépp. ndax ku na xam ne ni jaamu na fa yàlla jaamu koo xam ne liggéeyal fa sangam ba liggéey boo xam ne faw danañ dem ba teg bët ci liggéey boobu loo xam ne jeexit joo xam daañu xam ne liggéey baa ko waral loolu nag sëñ fa dox na ca lam ca war a dox bàyyee leen ku ngeen ànd ko bokki taalibe bi àndoon moom waaye yaakaar naa ne lu mel nii du yem ci yéen rek képp ko bëgg lu baax bu ko déggee dana ci dugal loxoom ndax liggéeyal sëriñ bi dëgg dëgg dëgg la foofee day barab boo xam ne lu ne na ko fa bayit wi nga wax rek moo koy firndeel bayri moom boo ko bëggee firi ci wolof rek da nga naan dañ naa foofee ca Mayomba lu mburu dëjut ci taal waaw door a am limaam bu kenn defee ne dama faa tëdd rek toog rek ba am limaam déedéet dama faa daj lu mburu dëjut ci taal loolu mu doon wax naan teg nañ ma fa ci ay natt loo xam ne sama làmmiñ du ko tudd mukk ngir ay teggin sama digg ak sama borom kon nag li rabbin gafuurin qad maxa anni damba wa anni nafa iblisa fii baxri Mayomba lim tudd Mayumba rek ni mu baree te am na ca barab yoo xam ne euh, ña fa lay tudd waaye tudd sax barab ba Mayumba nag moom moom daa bari ci xasida yi euh, ak histoire yi mu indi yëpp jàkka ya jàkka yam foo doon def ñu fa bant ya sànni yooyu yëpp day waral nga xam ne yàgg yàgg rek suñ borom dana indi pay gi mu ko pay waxuma la baatin saa saahir si ñëpp dañ ci teg seen bët loolu nag mooy lii ngeen bëgg rek ndax lu gën a rëy réew mu lëndame noonu réew mu bari ay ñu yàlla dama faa def juma ab jàng jàngukaay bu mag buy jàngale diine loolu li yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne la yahdiyanna Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min na am fexe ba kenn nit tuub dugg ci diine wala nga gindi nit ba mu jub rek moo gën adduna sépp nga rangale ko ak jur saraxe ko ngir yàlla tuyaaba jang ca waroon am kenn nit nga gindi ko ba mu dugg ci diine wala ku doon ci nga jëli ko ci andi ko ci jub moo ko ëpp doole kon nag foofa moo loolu mooy liggéey bi fexe seet fu lëndam nga leeral ko ñu xamul nga xamal leen ñu gëmul nga fexe ba ñu ci diine loolu rek mooy liggéey bi kon nag noo ngi lay encouragé ci loolu bu baax a baax te di ci ànd ak yéen te jàpp ne ku ko xamee nii foofu rek ne da ciy jàppale di ci woo taalibe yëpp ñu jàpp ci kër sëñ Tuubaa googi ak li daaray sëñ Tuubaa jooji ak jumaay sëñ Tuubaa jooji fa sëñ Tuubaa am juróomi at yoo xam ne demoon nañ ba waa Sénégal ñi ci ëpp defee na génn àddina ndax nëbb guñ ko fa nëbbu ak coono yuñ ko fa teg ba ba mbirum umpoon ñu bari ba xëy xëy leeraat ne ma ngay ma nga fa ànd anda ànd ko ko ruuxam waaye jàpp ñu nekkatul ci àddina foofee nag yaakaar naa ne lu faay def rek yoon wépp nga ko defal waaye rawatina Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim te ngeen dem fa ba ànd ci ak moom mu jox leen ci ndigal loolu it dañ leen ci encouragé rek te jàpp ne murid yëm yëpp ngeen koy àndal da ngeen koy jiite waaye murid yëpp dañ ci dugal seen loxo di ñaan mu àgg coleet bañ sañc ko ñu bëree bëri dugge fa ci diine ngeen liggéey lu Sëriñ Tuubaa te sëriñ bi nangu ko jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf وسالك نار الخل لي بر ما ينبغي